APR commission discipline dàq ko Moustapha Cissé Lo euh, ci rang alliance pour la république euh, ba pare boole ci di dànkaafu ñi nga xamee ni ñoom ñooy ay camarades ñu ñu bokkal partie bi euh, ci yenn comportement yoo xamee ni dafay saltel derub APR dégg ngeen ci Abdou Mbow li mu ci wax nee na ni ñoom jël nañu article 3 4 14 19 ak 20 ngir mën a sukkandiku ci loolu ngir jël décision bi ñu jël Moustapha Diakha tamit Diakhaté mi nga xam ni ci lii tamit lañ ko dugaloon moom nee na ni c'est une décision nul et non avenue yéen ko doon waxtaan tey ci suba euh, ci biir journal bi Mansour tàmbali ko ak euh, El Hadj euh, décision bi ndax mën nañ jàpp ni bette na bettuwul bettewul daal bi nga xam ne moom la waa APR jël daal bi Birahim ginnaaw nag bañ la nuyoo di nuyu nag auditeurs Zik FM yëpp nekkul lu bette nekkul lu bette waaye ñoom fañ war a dàqee lañ dul dàqee ñoom loo xam ne dafa laal seenu parti ñu gaaw jël ca ab décision woo xam ne wu gaaw la waaye lu laal askan wi lu laal réew mi te ñoom seeni nit def ko ñoom loolu dafa mel ni daal soxalu leen loolu nag moom mooy wane ne ñoom dëkk bi soxalu leen dëkk bi ñoru leen dëkk bi taxul sax ñu jóg te dañoo fàtte na dëkk bi moom moo tax nit ñi teg leen fi Birahim infraction xam nga fan la tàmbalee ma nga tàmbalee ca nit ña yëkkati seenu alal dénk la ñi nga xam ne dañ leen a tudd ci ay scandale ci nguuru Macky Sall gi yëpp farata ak farlu gi nga xam ne moom la ñuy def bu ñu leen waxee lu laal Macky Sall président au parti ak Macky Sall président de la république ñoom nañ ca war a gaawee jublu ca ñoom duñ ko dee defee. mais lu laal seen partie bu ñu ne Moustapha Diakhaté dafa wax ne vraiment Macky Sall ci boppam bu mu fi waxati lu jëm ci wàllum troisième mandat. Mhm. kooku kenn du ko kooku dañ koy dàq. Seyna Fall ca ëllëg sa wax ne Macky sàll day am trois mandats ñu ne ko yow kenn du la dàq déggoo ma de mhm. Moustapha Cissé lii mi ngi tàmbalee ci intrant yi la commencé mhm. ne li nit ñi xam li ma xam bu ma ko waxee ay yëpp ngeen di génnee fii ci assemblée nationale xam nga la coow li commencé mhm. léegi nag waxtaan woo xam ne alaaji dafa privé moom la gars yi jël génnee ko ca mbedd ma Cissé Lo ba Lo am na loo xam ne wax na ko ci biir waxam dama foog ni ñu bëree bëri dañ cee bàyyiwul xel daf ne sàcc bi nga xam ni moom ngeen sàcc ci terre bi ak ci building administratif. ak ci building administratif. soo leen sàgganee wala ngeen dof-doflu danaa ci indi ay gindi leeral ko. est-ce que mën nañu wax Ahmed ni loolu bokk na ci lu précipité tey. Euh, justement cette exclusion ndax. waaw dañuy fàttali ni. Ah, propos ni ñu koy waxee euh, propos yi mu tenir. ñu bari di ko ñaaw ñaawlu. c'était dans un cadre privé. ñu génne audio yi. tey commission de discipline bi euh, moom sukkandiku ci ndax déjà démb ci lettre bi ñu bind pour convoquer. commission de discipline xamle nañu ni dañuy ñaawlu kàddu yu ñaaw yi jóge ci nommément ñu cité ko Moustapha Cissé am na lu gën a ñaaw li gën a ñaaw moo ñu dénk na suñu xaalis Birahim ay corps contrôle état bi yoo xam ne ci yéen lañ bokk nekk biir présidence de la république mhm. dégg nga jam la baaraamu tuuma yow si sa doxalin président de la république ñëw doole la may la promotion mhm. dolli sa ministère wala fal la sax ab ministre de la réplique Cissé Lo saaga yi kenn du ne lu rafet la. la ñuy posé question kay mooy fan la ko defee. ak euh, kan moo ko génnee. kan moo ko génnee. mais ñi ko génnee ak Cissé Lo mi saaga ils doivent tous être sanctionnés déggoo ma de waaye même ñi ko génnee pour man ñoom la seen daan war a gën a rëy pour la prochaine fois. parce que fi mu nekk nii ne kuy wax ak nit na nga def attention. Mm-hmm. alaaji mën ngay wax ak man ma déclenché sama enregistreur. sama téléphone bi. maanaam fii pare tasaare ko ci mbedd mi te dara du ma ci fekk. fii retour bi la ñu gis waaye gisuñu ale bi. gisuñu ale bi. ki tontu lañu gis waaye gisuñu wala dégguñu. ki wax mu tontu. ma ne waa APR. ñi ñu war a dàq ñi ngi ci ñoom. ñi jël alalu askan wi. ba mhm. pare te nit ñi di jéenuñ leen ko alaaji. Mhm. ay kóoru kóoru kóoru contrôle état moo leen jam ay baaraamu tuuma. ñooñu normalement commission de discipline APR dañoo waroona a woote alaaji ca guddi ga. ca guddi ga ne yow moom bis ni ki tey suñu parti bi dañ lay dàq. parce que ñun dañoo woote woon une gestion sobre et vertueuse. dañoo woote woon clean. dañoo woote woon lu leer. dañoo woote woon pour une rupture. dañoo woote woon ci gestion boo xam ni Birahim bu leer lay nekk. clean yow nag rax nga ñu dinañ la dàq bis ni ki tey. parce que doo làqatu ci ginnaaw Macky sàll rek ba tax nga bëgg a sàcc waaye ceeb baa ngi nii. jafe-jafe yi ci am Covid bi lee mille milliards laa. ba tey indiwuñ ci ay gindi. Cissé Lo wax ne Diouf saar na expliquer nit ñi cinquante quatre milliards. yi nga xam ne moom lañ ci def. Aïda Mbodj ne waaw en dehors de ces cinquante quatre milliards les soixante neuf milliards. yi nga xam ne moom la ñu def ci wàllu dund gi ñëw leen assemblée ngeen leeral ko. Macky Sall dañ ko jiinoon ne. dañu Karim ñëwul assemblée nga leeral lii ak moom lañ ko jindee. d'accord kon mu mel ni euh, euh, El Hadj ñu jaaree fa jëlee ko fa. waaw euh, ñii itam nee na leer ngeen fi jaaree maanaam yéen yéen yéen yéen yi lii du sax erreur. d'accord alors dañuy dem peut-être très rapidement El du Mamadou Mansour Diop si suba ñu ngi koy wax. ale bi lañu gis. wala retour bi lañu gis gisuñu ale bi est-ce que APR tey taxawaay bi mu taxaw ce n'est pas également un signe pour. ñeneen ñi nga xam ne peut-être seen i comportement war nañu ko xoolaat. Moustapha Cissé Lo nekk victime tey ci APR. mais ëllëg mhm. keneen dina nekk victime. Mhm. parce que fi nekk nii egg nañu ci di génne li nga xam moom la nit ñi doon waxtaanee ci ëtt yi. Mhm. te gis nga réseaux sociaux yi il faut nit ñi xam définition chaque réseau sociaux ak lan lay joué ci biir société bi bu fekkee Facebook la yow mi ubbi sa compte. validé ko am nga sañ-sañu am juróomi junni xarit. loo publier dañu lay laaj ni la li ngay publier. Mhm. pour sa ay xarit kese la. Mhm. wala pour public bi yëpp la. Mhm. wala pour yow dong la privé. nga publier salon ni mu la neexee def sa choix. tweet la même chose yow yaa bëgg a joxe information ni man Ahmed dara def naa telle ou activité. daal di koy ci sa page tweet. ku ko mën a liir lii ku ko ci mën a commenté commenté wala ñu sukkandiku si mu nekk source légale bu la concerné bu fekkee nag YouTube. nga am sa benn compte wala nga bëgg a créer benn chaine boo xam ne partenaire chaîne seen standard bu nekk partenaire YouTube. nga xam da nga ciy gagné xaalis wala nga ciy joxe information laa tey suba maa ngi naan am na formation yu ñuy def ay séminaire ñu ngi ciy piège même journaliste rendruñ ci compte parce que YouTube du réseaux sociaux pour joxe information réseaux sociaux pour képp ku mën a alimenter benn chaine YouTube standard bu YouTube mën a reconnaître mhm. même bu fekkee ci sa géttu xaar nga nekk mhm. du chaîne information loolu yow mi ko ubbi yow la concerné parce que yaa xam compte bi yaa ci publier lu la neex. TikTok daanaka moog Instagram ñoo xaw a bokk milieu la bu xale yi di fowe am ouverture mais ku nekk da am sañ-sañu sélectionner say ami ak ñi am sañ-sañu gis sa ay vidéo wala say commentaire par contre nag WhatsApp moo ci gën a fermé wu moog ins moog euh, moog moog Telegram yooyu numéro la numéro. mook mhm. appel ñooy am. Mhm. su ma defee audio dugal ko ci numéro El Hadj ay Aidara dong lay dem directement. kese te Moustapha Cissé Lo kàddoom yi audio la. Mhm. léegi audio yooyu doo information. Mhm. YouTube bi ko jàllale chaîne yi ko dugal dugalaat saaga bi est-ce que ñi moom chaîne yooyu implanté ko ay journalistes lañ. Mhm. est-ce que ñoom am nañu wareefu publier loolu. loolu nag kon question bi defoon naa ne bu fekkee war nañu am vraiment spécialiste ci wàllu réseaux sociaux. ñu wóor leen ñu waa situation parce que lii nii du xibaar. ñu doon ñu doon ñu doon ñu xuloo la ñoom ñu doon xuloo. seen biir ci biir mais ñu génne ci moom li mu wax. ñu génne tey wala mu tontu tey Alaaji ah. commission discipline bi réunir pour exclure Moustapha Cissé Lo. waaw wallaahi la ñu wax lépp ci bureau ba génnewuñ ko. Mhm. dañoo trier sélectionné li leen neex. benn seen benn communiqué bu ndaw génne ko. lañ fa eh, lañ fa waxee bu ñu leen enregistré woon tey ba génne ko. nañ ñu génne lañ fa wax rek dina dàq ñenn ci ñoom. parce am na fa ñoo xam ne xaabaabal am euh, ci ci ci wàllug réaction ku ci mel ni euh, njiital ONG 3D euh, avant ñuy agsi ci lii moom am na waxtaan bu mu jotoon a seq sànq ak ajaratu Aïcha Ñing moom li mu jàppoon mooy ni assemblée nationale dafa waroon a jël initiative te ndindi mbanaanu kiraayu parlementaire bi euh, ba pare génn ko ci assemblée nationale alors euh, Moundiaye Cissé euh, gannaaw bu la nuyoo est-ce que wax yooyu nga waxoon sànq sax avant journal bi di jot ba ñuy am xibaar boobu da nga ci dellu siwaat wala dégg nga daal mbir mi nu mu demee. waaw dégg naa mbir mi ni mu demee te du lu bette que ñu génne Cissé Lo mais problème bi dama wax ne Cissé Lo c'est l'arbre qui la forêt. cest dire que mbir mi du problème mu Cissé Lo dooy xool analyse ñett nga ciy def d'abord que ne ñi ñuy ñi ñuy jiite fu mu toll nii président de la République Macky dafa war a xoolaat entourage am xool ñi muy collaborer la parce que booy xool kaaw Cissé Lo dafay wane ne président de la République ñi muy tànn ñu wër ko tànnu leen ci xam-xam tànnu leen ci euh, mën-mën tànnu leen ci set loxo da leen tànn ñu si bëri ci seen jegeñaayam ci euh, xaritoo te réew kenn ko yoree ci xaritoo kii sama xarit la kii jàppale na ma dama koy jël tey Moustapha Cissé Lo mënoon na nekk président de la République parce que tey bu Moustapha Niass empêché woon moom bu président de la République mu empêché moom da nekk président donc bu ñu jël mbir mi teg ko ci Moustapha Cissé Lo dafa raw romb Moustapha Cissé Lo mboromu entourage du président de la république la et ça nous met tous en danger parce que réew du caaxaan donc ñii liy war président dafa war a nekk ñu set donc ginnaaw Moustapha Cissé Lo parce que Moustapha Cissé Lo du n'importe qui dans ce pays il est président vice-président de l'Assemblée nationale donc ginnaaw daa xam ci APR war na ñu xool révélation yi mu wax fan la jëm parce que di mu n'importe qui niveau d' information bi mu am mhm. bu waxee ne dafa am luubal ci wàllum building administratif mhm. wax ne dafa am luubal ci wàllum terre mhm. wax ne dafa am yeneen luubal ba pare ak fi mu ko waxee parce que waxeewu ko ci mbedd waxeewu ko ci enrichissement eh, parce que bi muy wax ne bu ma waxee li ma xam dañuy jël ministre yenn yi jël ay yat dóor leen génn leen mais assemblée nationale la ko waxee tout à xam naa dinañu li gën a wax mooy boobu rek assemblée nationale tij bi enquête parlementaire. Mhm. ma te suñu député itam li ñuy war defuñu ko. jour bi Moustapha se wax ne su ma waxee li ma xam. Mhm. ñu jël ay yat fekk ministre yi dóor dañu waroon teg euh, commission enquête parlementaire lijjanti li muy wax lan la. Mhm. procureur autosaisir wu def enquête ci mbir mi. waaye Sénégal dañu mën a jàpp mooy d' abord tànneefu profil yi ñuy jiite war nañ ko xoolaat ensuite dañoo mel ni dañu am euh, yoon justice su kumba am ndey kumba amul ndey. Mm-hmm. waaw mu euh, Moundiaye Cissé euh, yow nga nekk ci ONG boo xamee ni da ngeen di jëm ci wàllug euh, démocratie waaye tamit lépp leer ci lu jëm ci ay élection ak yu ni mel tey kii député la ci assemblée nationale bu weesoo dàq bi ñu nga xamee ni APR décidé na ko est-ce que avant ñuy wax waxu dàq ko ci député wala dindi baraanu kiirlaayam ak yooyu waruñu leeral ca kanamu assemblée nationale kàddu yi nga xamee ni yëkkati na ko ba noppi. moom laa la wax fu nii mbir mi ñett première mbir bi mooy d'abord procureur autosaisiru ci luubal yi mu wax ne am na ci maanaam yi mu wax luubal yëpp dañ ko war a jël def ci enquête def ci enquête ci côté état ba pare def commission d'enquête parlementaire pour xam luubal yooyu lan la jar na sax ñu def commission indépendante boo xam ne farul fenn mu lijjanti luubal yi nga xam ne mu ngi koy tudd parce que quand même lu jëm ci terre bi yàgg Sonko yàgg na ci wax ñu naan dëgg la du dëkk n'est-ce pas lu jëm ci building administratif bi ñeneen yaa wax nañ ci ñu naan dëgg lu dëgg donc tey bu problème yooyu amee dañu ko war a leeral ñun Sénégalais xam li xew beneen bi mooy problème bi du siiseloo rek mais du moom rek xëy na moom la ba sama fës mais autorités yi fu mu toll nii dafa naa ne Macky Sall dafa mel ni réew mi sabar gu tas fu mu toll nii te nag moom la ñu fal du siiseloo la ñu fal du yaaxam mbay la ñu fal du Farba Ngom la ñu fal moom moo war a xam ne moom la ñu fal te moom moo war a rendre compte Sénégalais yi waaye jamono ñu toll nii réew mi dafa mel ni la république est dans la rue pëcc xoo moo am ci réew mi te waruñu ko Sénégal yi waruñu nangu loolu yi Sall mooy responsable numéro un de tout cela parce que moom lañu ñu fal moom moo jël ay collaborateurs tànne leen ci tànneen boo xamante ne ni tey ñooñu waruñu woon nekk sax ci wetam nit ki boo àndeex moom mu xeex la ci politique c'est pas parce que xeex la rek da nga koy jël def ko président assemblée nationale vice président assemblée wala ministre am na yeneen poste yoo xam ne peut-être laajul xam-xam laajul daraja nga def leen fa. waaye poste yi nga xam ne c'est des postes stratégiques xam-xam lañ ko war a tegeex nit ñi set loxo ak yorin bu rafet. d' accord d' accord ñu lay jaajëfal bu baax a baax euh, Moundiaye Cissé euh, bu jiite ONG 3D euh, wax na léegi kàddu yi nga xam ne yëkkati woon na ko ci assemblée nationale la ko yëkkati woon moom Moustapha Cissé Lo Daouda da indiwaatal kàddu yi nga xam ne Moustapha Cissé Lo wax na ko. say collaborateur muy directeur yii fi toog ñu ci bëri xam naa leen maa ngi leen di nuyu euh, di leen sant euh, su ma wax monsieur le ministre xajul fii maron beige la je suis de l'APR maa créé APR maay APR APR man la bi may xeex pour Macky Sall di falu fii laa ko xeexe kenn ñemewu la wax am nay député fii yu fi ne ñi ngekki responsabilité dañu àndoon ak Ablaye Wade ci xeex boobu may wax ni lii du dëgg ñoo naan dof baa ngi wax ma ñëw nekk seen vice président sañu ñu ko bañ nekk président parlement CEDEAO yàllaa ko def mënuma jàppale Macky Sall wër àll bi doon xam bay gerte naan ko ndax li ma doon wax Macky xamu ko bi ñu nekkee ONCAD cent mille tonnes cent vingt mille tonnes moo doon capital semencier man ma def semence fukki at ak nangam xandi giñ doon defee contrôle densité Sodeva lañ doon am ma Diop Jale PDS la woon moo nekkoon ak man Sarsara booba gone yi judduwuñu man may gérance ko premier financement bi ma jot pour semence trente million la temps yooyu bu ma bokkee ci pouvoir bu ma xeex nañ ma laaj ci gerte gi ba pare may opérateur semencier import export maa ngi ko am quatre vingt et un permis quatre vingt am quatre vingt deux passeport génn réew mi dox fu ne am lu ëpp mille visa fu ma dem ñu déglu ma ñu ngi may xaar méridien ci gaz beeg pétrole bi maa koy ubbi man discours bi lay def ñu ne dof la duñ ko déglu jamani gerte gi niñ koy seddalee baaxul juuwul mooy premier point noté ko danaa def question oral parce que dama bëgg a wax gerte gi kenn du ko yàq prix bi baaxul bàyyi leen ñi leen di wër naan leen ay profession amuñu tool jiw kenn du ko jox ku koy jaay ji café de Rome ku mënta produire une tonne nga jox ko semence di tonnes cent tonnes mu jaay ko parce que subvention de l'état ci ne am na ku may jaay mille tonnes yu ngeen ko jox engrais mënu koo fournir parce que amul xaalis banques yi wóoluwuñ ko man ma mën a am deux milliards ci banques yi di ko laaj bokk ci pouvoir bi di opérateur yi kon président de la chambre de commerce. voilà ab ab ab jokki la woon ndax euh, dinañ ko.